lu ne fàng ne dàng kenn du ko jeex seede nañu sa mbëggeel ci Baye Niass sang bi euh, ñu bëggoon xam nit tamit jaar-jaar bi tey ci faydu Mawlana Cheikh Ibrahima mhm. tey sang bi fan la jógee mhm. euh, euh, daal di nekk taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mhm. wala balaa muy nekk taalibe Baye jaar-jaar bi jaar-jaar bi ba yàlla boole la ak Mawlana Cheikh Ibrahima ba nga am ci tey li nga am macha allah soxna sa loolu taalibe su ma nettalee dafa Euh, am na ca gàllankoor yu métti. Hmm? gàllankoor yu métti métti métti métti hmm? dem nañ ba sumay dox ci mbedd mi ñu may aaye dox ci mbedd mi. fii Dakar. Dakar fii dox ci mbedd mi laa wax dox ci de ay fajar dañ naan taxaw suma bu dëkk di saaga ñiiti ay jaasi ñiiti ay lii loolu dal na ma Dakar Ndiaye fii ma te la ay seer fii fii fii fii ci parce euh, euh, parce que asali semaine bi ma jël bu tool yi ci wala bari sama yaay dañ ko jël taxi mu ñew bi ñewé fekk ma ni ñang ni ñang ñew oh, bu ma wax lu xew way ni ñew ñëw nañ fees ñaa sama kër nga fess ak nit ko ñu di wax sama yaay ñew kaaloo comme ni nga def ni mu suru tok ñool ma leen ma ñëw toog mu ne ma man de ma ñew pour sees la wax yi bërna lool la borom bi indilaatoon tay sa wajur bu jigen ci aduna ak teranga gi nga xamne tay am nga ko ci faydu sha allah mhm. te day gën a yokk incha allah. dëgg la. tey lan ngay wax sa yaay ak démb ci ci méttit méttit tàmbale faydu bi mu la gisoon. lu ma koy wax rek. waaw yow tontu nga ma ko li ma koy njëkk wax rek mooy yaay. asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon ñu ngi leen di ziar ñu ngi am beneen yoon mbégte ak kontante saay su nekk rek ci ànd gi ngeen ànd ak Barhamiennes TV ci suñu émission yi nga xamante ne entretien la saay su nekk rek ñu ngi wër ci kër mu muxaddamu Mawlana Cheikhul Islami El Hadji Ibrahima ñas ñu nekk ci faydu di waxtaan ak ñoom li nga xamante ne dañu koy taataan mu nekk njëriñ surtout ci jeunesse bi waaye ginnaaw loolu ñu ngi ndokkeel ñu ngi ziar ñu ngi koy jox wàccuwaayam suñu xalif général de la fayda ya Cheikh Mahi ibnu Ibrahima Niass ñu ngi ziar beneen yoon suñu imam imaamu ratibu bu Médina Baye di ndokkeel beneen yoon suñu porte parole bu wér bu ko defee nag dañuy daal di bàyyi suñu sëriñ bi nga xamante ne wax dëgg yàlla jàmbaaru diine lislaam la soldaaru Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la ñu daal di koy seet si fii ba parcelle fas yéene waxtaan ak moom si suñu entretien sang bi ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ziyaar ñas ñu ngi lay jox sa wàccuwaay macha allah. salaatu wa salaam ala rasulillah. soxna Mata ñu lay dalal bu baax. di am mbégte ak kontaan lool ci émission bi ndax li tax ñu war ci am mbégte ak kontante lépp mu ngi jëm ci diine lislaam lépp mu ngi jëm ci tariqatul ahmadiya muy tariqa cheikh Mawlana cheikh Ahmadou Tidjani mm-hmm. waaye lépp mu ngi jëm ci sahibul faydati Tidjani Mawlana cheikh al islam laaj Ibrahim ñu nga am mbégte ak kontante lool di wax di nuyu mbooleem umma islam bi yëpp. ñu ngi la di nuyu ci kàlle bi nga xam ne moo gën a rafet ci mboolem nuyu yi te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi rëy ñu ngi nuyu mboolem diaspora bi yëpp fu jullit nekk rek ñu ngi koy jox loxo di ko ndokkeel ci émission bi ñu ngi xaasal ahlu tariqati tijaani bu warna cheikh ahmadou attiyaani radiallahu anhu mi nga xam ne mooy mooy sahibul wilayati wilaya googu nag la bàyyi jàngal-jàngal bu rafet nubuwatu moo fi nekkoon mooy yonent yi ak yonent bi bi mu tëjoo rek wilaya moo ubbeeku cheikh islam ibrahim mu ne al wilayatu tafajjarat min baxut nubuwatu safiya kon ñu ngi sant yàlla baax den sant Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ci loolu waaye di gërëm Mawlana Cheikh Tidiane ca lam déclaré woon démb ne taatee faydu ala asabina xataa yi du ko naas fitraq na afwajan afwajan afwajan mu ne faydu dana ñëw jóge sama tariqa bi wàcc sama loxol taalibe taalibe yi nag kan la jamono moo koy firi jamono tey ku xam na tey képp ku yàlla may bachara xam nga ne tey saay ba fay tiyan mooy Mawlana Cheikh Cheikh al Islam laaj Ibrahima Niass ndax lépp lu Cheikh Tana la waxoon ci mbiru fayda bi rek ci xeet yi nga xam ni dana dugg ci faydu bi af faajan af faajan boobu moo leen mboolem xeetu àddina yëpp dañu dugg bàyyi la ko yàlla may Cheikh Ibrahim la yàlla may ci fayda bi tey mboolem xeetu làkku àddina bi yëpp dugg nañ ci fayu ya kon ku mel noonu wax dëgg yàlla bu ñuy def ci moom émission ñu ngi koy def ci koo xam ne nii matee na ko wala nga ne ëpp na émission waaye nag lenn ci moom rek la ñuy waxtaan ci ji ma waxtaan ci émission bi bala may nak damay nuyu nuyu bo xamne ci mom la koy jele ndax moom moo bind nuyoo bo xamne bu am qusus bu am jegle la lol daf alhamdu mutlaqan li zaatil bari suma salamuna ala al muxtaari bashiril wujudi مركز الاسرار sirri شؤوني مجمع الأنوار حق قدره ومقدار عظيم كون نيغي سانتي الله باخ دي نيو سكيغا خامني تاي موي ليپ شيخ ابراهيم موي محمد الماهي نياس ابراهيم محمد الماهي تودو كو جامانو بي يالا گرم نكو لول ndax mu ngi liggéey liggéey bu rëy ca aalamu yàlla bi mu ngi tourné di delloo nañ ci borom subhanahu wa di tuubal ay nit yoo xam ne seen ruuxu dafa du ma yuhun islaam mu orienté leen ba ñoom ñoom ñu tegaat siraat mustaqim kon kooku wax ci moom yomb na rafet na dagan waaye ñu ngi nuyu imaamul akbar bu mu ne Cheikh momna Cheikh Ahmed At-Tidiane Ali ñu ko nuyu baax diko ndokel diko ñaan ko jamm ak salam wacc ci mom yaram bi nak ko gëna gën ci lu feñ ak ci lu dëbb mom ak njabootam yeb gëna loolu tamit ñu ngi nuyu porte parole bi na Cheikh Ibrahim Ali ñu ko nuyu baax diko ndokel diko wacc wayam di gërëm dal mbollem doomu cheikh ibrahima ñas yépp ñoo leen di leen gërëm di leen ndokkeel di gërëm mbollem muqaddam yi bu ne doomu cheikh ibrahim nak ñëpp duggu nañ ga waye temis dafa am rek bu ne doomu cheikh ibrahima yi doomu yi nga xam mu leen jur moy doomu yu goor ak doomu yu jigen waye bu ne doomu baye tamit nak talib yépp mënañ duggu ndax ñëpp mu leen jur kon maa ngi nuyu mbooleem muqaddamu Cheikh Ibrahim yi fu ñu mën a nekk a ba z bàyyuma kenn moo xam muy góor moo xam muy jigéen moo xam muy mag moo xam muy ndaw moo xam muy ku ñu xam ak ku ñu xamut maa ngi nuyu ñëpp di leen ndokkeel macha allah di fas ne wax tuuti nag ci soal bi nga laaj léegi sama jaar-jaar ci fayda bi balaa ñuy dugg ci loolu sang bi. Mhm. ñu ngi jéggalu bu wér wér. Mhm. di tuub ma ne ko dañuy tàmbale ci li nga xamante ni mooy cant la ak ngërmande. Mhm. ci xonnite bii nga ñu may wax dëgg yàlla ndax kenn ku ne xam na ne seen temps bëriwut. waaye yombalal nga ñu ko. dañ lay sant ci loolu di ñaan yàlla na bàyyi ña si fay la euh, fi ñuy tàmbalee mooy tey kan mooy sang barxaam dëgg dëgg kan mooy sang barxaama tey foofu la ñuy tàmbalee waaw kan mooy sang barxaam borom xam nga dañuy wax ne yaaram dox ci boppam waaye manañ dem daal ay isaaraat ne sang barxaam daal kenn la ci toppam Cheikh Ibrahim kenn la koo xam ne ci ñi bëgg Cheikh Ibrahim topp ko ci wax ak ci jëf kenn la ci ñoom kenn la koo xam ne it tamit mhm. wax dëgg yàlla bëgg na Cheikh Ibrahim mbëggeel gu tar boo xam ne xalimba lott na pour bind loolu xam na am na yenn wax su ma ko waxee dana rëy ndax tey wax yu rëy moom yàlla dañu ko nattoo waaye nag lu mu rëy rëyit day nekk dëgg Cheikh Ibrahim dafa wax moom Baye Niass mu ne mom bi muy bëgg yonent yàlla Muhammad yàlla bindagul jamono bindagul barab. deug la Niass. qad ahbabtuhu hatta arani kunsuhu wa rabbi lam yuhla makanan wala waqt mena fale mena dedet fa jawartu taha ahmad al badri nasri wa jaawaru shiri wa jaawar bayta mu teg ca ne ne li gën a garaaw mu ne badali mu hayya u xabaani wisaaluhu wa man naala sirral Mustafa ak sara samta wax la bu yaatu nag buñ ko bëggee leeral dana jël temps bu gudd lool waaye daal ci gàttal rek nee na ba ba mu bëgg yóntaal Muhammad salaam daam moom bàyyi booba jamono ak baru sax amagut xataara mm-hmm. ni ba gis ne moom moom moo yundu far nag dafa mel daf ko bëgg di ko bëgg ba mujj gi moom mu effacé ko moom nekk di yonent bi xataa araani kuntu te booba kat war a bee sama borom lam yola makaanan wala waxtu bu yàlla bindul barab bindul jamono mu mel ne fale mu ne dee ma topp yonent bi mu ngi ci xadara boobu fa jaawaatu taaha ahmada badi nasri mhm. topp naa taaha ci beneen façade lay nekkaat waa jaawaru shi'ri yi topp naa ko ci ay samay écriture man sooy mbind waa jaawari nii baytaa mën na léegi ba dëkk ak man suma néeg man Cheikh loolu doy na waar ñu ne mu mel fale mooy déedéet ba daali mu hayaa u xabaani wisaaluhu wa man naala sirral Mustafa ak sara sant loolu loolu doy na war neen dem na bo yunus sallam summeku xol ko ak kanamam ni jeharan mu jaxalam mom mom moom nak di waxtan ak mom di jëloo ak mom lolu wax de yalla neex ñep mënu ko deg way lu mang sante bax ci wax di ndokel cheikh ibrahim di wax ne man sama kan moy sang njaay ci faydu bi batay dama ci ñewat moy ken la ko xame dal mhm. mu ngi jéemantu di liggéeyal borom subhanahu wa taala mu ngi jéemantu di liggéeyal ki nga xam ne mooy sang mbindaafoon yi te mooy sayduna muhammad alayhi salaatu ak ay sahabaam mu ngi jéemantu di liggéeyal ki nga xam ne mooy saahibul tariqa te mooy Mawlana Cheikh Ahmadou Atiyaani radiyallahu anhu waaye mu ngi jéemantu di liggéeyal ki nga nag mooy liggéeyal ko mooy liggéeyal ñi ma wax ñëpp liggéeyal bàyyi moom Mhm. boo ci xasee egg rek egg nga ci liggéeyal ñëpp. ndax ku xas téxee bàyyi téxee nga ñëpp. Mhm. ndax loolu bàyyi da ci bind ay bind yoo xam ne dafa bëri lool yoo xam ne mhm. eh, soo ko firee dana am ñum lottal waa dana am ñu gërëm. moo tax ni mu gën a oyofee rek ñun noonu lañu koy waxee. bàyyi ne nag ka anna rasulullahi fil bayti haadurun yusaamiru sayqaani wal waslu mubtasal mooy dafa mel ni yonent moom daal mu ngi nii ci nii bi toog. kan rasulullah fi bayti xaadir mu ngi nii xaadir moo ko teew. yusaamiru sayqaani nee na mu ngi waxtaan ak ak ñaari xaritam yi bu ne ñaari xaritam yi nag yow yaay xam kan mooy xaritam. ak luy néeg bi. néeg boobu nga xam ne moo la bàyyi di lépp néeg bokkul ak suñu néeg yi nga xam waaye néeg la daal ci néegu yàlla yi. mu ne yonent nag mu ngi gombalante mu ngi waxtaan ak ñaar xaritam yi xaritam bu njëkk ba mooy lu boo xaritam bu ñaari mooy borom wilaaya mhm. ñu ko ci bind bi mhm. loolu rek tegtala ne kon bàyyi ak yonent ce que ñaar ñii mosuñ tàqali ko non non mosuñ tàqali ko ñoom ñaar ñoo mos a ànd ci ay wër na wëruwaay pi yàlla bi nag laa wax comme ni bàyyi doon wëyee léeg-léeg nga dégg sax mu mu dem yàgg mu mu def tawasul mun a chifaari ilal haadi li salika afrahu man bàyyi sama tukki yëpp ki may xentu di ko seet muy taal Muhammad waaw xoolal léegi léeg-léeg wax yi day demee ne léegi la mu waxee ne xoolal chifaari ilal haadi man sama tukki mi may tukki nii yëpp jëw mu ci kenn ku yuntal Muhammad dëgg la sallallahu alayhi wa sallam afraw masha ba mu yàgg nga dégg mu naan man bàyyi maa yonent bi walim laa pourquoi pas wa ayni yow ma ayni Muhammad يو يانغي توكي كينغي وربو يونتبي تي يو ياي يونتبي دغ لا وليم لا سما سما سما سبو هانو ليغي جيبيتي ديسان كيم تاخونا وقت ما فتحي عند مهدي ديسان وقد انا جامي رجال الغيب تهت قدائي الله فما غطه في الشرق والقرب فت فدن الا مكه لتخ الى السم سسائي الله اكبر وليم لا bàyyi moo ne pourquoi pas wa ayni yow ma ayni muhammadu sara sirruhu fi haykal waruwaay teg ca ne moo ne wa ahlu samaani kulluhum faasa raqiyan siwaam na xam ne haji asiru hawaay sama ñoon jamono yëpp texee nañu yéeg nañ lu rukk inkaas mooy yoon nga sa doyadi. alhamdulilah kon ñu ngi sant yàlla baax. macha allah ci boobu sëriñ ko ko am noonu la. ndeysaan macha allah kon sang bi. waaw <laughs> kontaan nañ <laughs> macha allah alhamdulilah alhamdulilah euh, Mawlana Cheikh Ibrahima Niass seedeel hmm. nañu ko mbëggeelam ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Hmm. waaye yow itamit ëxlu faydu seede nañu sa mbëggeel gi nga am ci Baye Niass hmm. radiyallahu anhu mu ne fàng ne dàng wax dëgg yàlla. te lu ne fàng ne dàng kenn du ko jeex seede nañu sa mbëggeel ci Baye Niass. sang bi euh, ñu bëggoon xam it tamit jaar-jaar bi tey ci faydu Mawlana Cheikh Ibrahima mhm. tey sang bi fan la jógee mhm. euh, euh, daal di nekk taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima Niass wala mhm. bala muy nekk taalibe Baye jaar-jaar bi jaar-jaar bi ba tey yàlla boole laak Mawlana Cheikh ba nga am ci tey li nga am macha allah jërëjëf jaar-jaar bi de neex na jàngale lool ci képp ku xam taarixu démb yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi bi ko yàlla di jëlee li tudd al ishra wal mihraj parabole bu reuy mu ngi fofu jógee na haram dem na masjidul aqsa waye fam jaar nak yal nëbb na ko waaye aarif nit yàlla xam nañ ko moy masjid haza ñat jàkk yooyu suñ sam ci la jaar bam ne ba masjidul aqsa moo yonent yëpp mais dañoo dekk waat mu jiite ñaar rakkay julli te moom julli la doon julli. Mhm. yun sansam war na li gën a gaaw moom la war li gën a gaaw la gën a la war mhm. muy alburax mhm. te bàyyi yonent yi fi fi ñu toog moom mu dem jiitu leen te asman bu mu dem fekk fekk fa lan la loolu luñ war a gëstu luñ war a xam ne yaakaar naa asamaan bu mu dem fekk yonent bi yàlla mu toog te moom moo war li gën a gaaw bay leen fa loolu question yi lan la lii mooy taarixul islam mhm. taarix bu doy waar la mu ngi nii muy benn mhm. beneen taarix bi yonent am salaam toog na judd na ba am quarante ans ñiin fukki at te waxul dara mhm. waxul yàlla am yónni waxul dara yàlla yónni ko dara wàccugul ci moom léegi nag foo koy askanelee <laughs> xel daan lot ci loolu ba yàgg yàlla yónni ko mu ootee kalima tawhid dong di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah daaru arqam am fa treize ans di oote kalima taw rek treize ans yooyu boo ko boolee ak quarante yi mu nekk cinquante trois ans te diini wàccugul ci moom lii lan la mu door a def nag léegi nag al isra wal mihraj comme bi mu wax léegi nag dem ci yàlla yëg asamaan yi ba bàyyi di ko tagg nag tagg bu neex ba naan ko rasulun sama fawqa sama fa innahu dana faddalla uhu ferdxus loolu lu day waar la Hmm? yónni ko dafa yéeg ci kaw asamaan ba asamaan yi jeex mu nekk ca kaw kaw. ba xam ne kaw amatul. sallallahu alayhi wa yàlla nag mu jege yàlla yàlla jox ko jox. fa awha ila habdihi ma awha yàlla déey ko lam ko déey. la ko yàlla déey nag loolu mooy secret ba. moo tax secret boobu yàlla déey ko nag bu ñëwaan di waxtaan moom Yunus sallallahu alayhi wa sallam ci insaan yéen tam nitam gi da ngay dégg mu ne ana basu mislukum man ni laa comme yéen rek. waaye nag yoo xam waaye di ma wax yu man mm-hmm. wax yu boobee nag mooy secret yonent bi lan la gëri nit ñi ak lu mu gëri yonent yëpp loolu la mm-hmm. te bu ñu xoolee seexal islam moom ni muy tëggee yonent yàlla moom sallallahu alayhi ci ngëreelam ci yonent yi mm-hmm. foo ko takk day fay jéggi dayoo ci lool aywa léegi nag yonent bi jógee al isra wala mi ñëw toog ñu ne kon nu bootu jeex na wilaytu muy ubbi encore wilayt bu ubbi ko mu ne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu à l'âge de 6 ans et demi juróom benn at ak moitié ci la mokkal alquran moom la Cheikh Tiyaan radlaanu mokkal na alquran fekk mu ngi ne xale bu ndaw ci zahir bi Cheikh Tiyaan du xale kan musta xale waaye nag bu ne xale mooy aasu zahir yi mu nekk xale bu ndaw mokkal alquran ci juróom benni at fi nit di war a mën a jugee alquran moom foofu la mokkale alquran moom la Cheikh Amadu radlaanu ah mooy tamit bi mu demee ba jàng téere yi balaa moo am dix ans huit ans dix ans borom xam loolu indi mokkal na mboolem luy ñuul ci ay téere jàng na ko mokkal na ko ba mu yàgg nag mu teg téere ya di seet ne yoonu góor yàlla yi foofu tamit am na jàngat bu rëy ndax certain mooy ay nu wilaaya ay nu wilaaya kon kan la war a wëri moom pour war ko mën ko war ko mën a xamal dara takliman aqal la ba tey kon la ma doon fee ci islam yunus sallallahu alayhi wasallam mu wër sëriñ si comme dem ci yow toog ci yow jël sa wirde jël na wirde yu bari en faveur wirde tijaan jël na yu bari ay naqasa ak ay xalwateeg yu ne na ko comme jël sa wirde daal toog ba mu yàgg rek mu ne ah ma ne ki muy seet du yow kon am na ku muy loolu jàngale bu rafet la eh, bi mu ko defee sëriñ si ba sëriñ si jamono mi yëpp jeex mu gis ne moom daal li mu bëgg ba léegi gisugul ku ko ko jox ben bis nak mu dajé ak mamam sopem kan la sayyidna muhammad alayhi salatu wasallam ñaari sopé dajé bin dajé nak, mam ji ne ko cheikh mu ne ko labbayk mu ne ko cheikh mu ne labbayk mu ne cheikh mu ne ko mu ne ko kul cheikh wasar anna mu rabbika sayyidul abar bahal serigne si japp doon baal ñëpp mari maistri mare man ken kot maistri Cheikh Tidiane la nee na ka la jàmb càmmal ga yonent yàlla Muhammad ci càmmal gay leeram bi moo ànd man ànd ak man naaw man naaw ak ba pi yàlla bi xotteeku ba jax tag ba ba mu na xa anta war a bukk yaa ngi sa borom a goog léegi mu ne ma xool Cheikh Tidiane ma xool ma xool yun sax man lan laa war a fay xaw ma ko ma wàcce kan la yàlla wàccee ci man salaatu fatiha ci maana mm-hmm. ma tagg yonent bi salaatu fatiha salaatu fatiha mooy salaatu goo xam ne amul sëlmal salaatu fatiha amul sëlmal mm-hmm. اللهم صل على سيدنا محمد منك منك الفاتح لما ولخ والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدر العظيم كون أمو سلمل نعم. ساتو أمو سلمل موي ساتو loolu لولو ci waxee am na histoire yu bëri yu ci amoon ci saatu al nabi boobu am na yeneen yu bëri yu ci am ndax yu ne sax mañ ko jàngaloon waaye saatu al nabi daal bi ci gën encore une fois mooy salaatu fatiha. bi ci gën mooy salaatu fatiha. ci xisa saayar nag dañoo wax naan euh, diwoo ko jox mu ko di moo ko jox ak yooyu waaye loolu moom jàngale yàlla rek la jàngale li mooy li ma la wax rek nit yàlla noonu lañuy réyantal mhm. voilà aywa sanga baraama jaay tamit bi mu ñëwee mhm. ci jamono euh, jaar naa ay jaaruwaay yu bari mhm. jaar naa ay jaaruwaay yu bari jaar fu ma jaaruma yi tamit danaa fa def toog di jël ba temps waaye man danaa gis ne ba léegi. am lu may séentu daal. wax di yàlla jotuguma ko. Oh, naa ngi xaar loolu nag lan la. benn bis warabul kaxabate ma tëdd nii. ngoon ay cinq ay cinq yooyu six heures. mu mel ni dama këf nelaw te nelawuma. ci benn gendeeku rek la ba la ma bàyyi ñu rek la feeñu. ci foto bu rafet bii moo tax sama gannaaw nii. rag damuloosi na ma nii ma mu mel ni dama këf nelaw te këf ma nelaw kat maa ngi toog nii sama bët yi gër gër na paw ndox ndax bari ña hmm? fa nekkoon ñëpp ma yaan oh, ñibbi dem leen ñibbi dem leen ñibbi dem ñibbi te hmm? suba sa alhamdulilah ma Tak sama e bagage fek amona ay e xarit ci yu bari ma tak sama pala sama sama sama sama bagage anda ak ben jam yalla bu baax ku ñu xam Mor ndjay ma nga dëkk Thiès ma and ak mu dal seet Cheikh kene mi nga ma wax léegi mhm. ba ma demee Cheikh ma fek ko ci Boubacar alhamdullah mu dal ma dal bu rafet waxtana mon waxtaan bu rafet dama fanaa but suba ba lan demé di jeudi ci ngol la fa dem lan demé di vendredi vendredi bobo na moytu mo taxaw ñu jël timas tous ba pare rek ma ñow mënu ma bismillah dal ma dalal ci ko mbolo mu bare bare bare bare bare mbolo mu bare mu la ma se yoon mako ko pare yé si xew amna yu si xew yo xamna ne wax mm-hmm. waye dal la ne ma sama yoon mako ko pare mm-hmm. mu ne ma babacar kaa ma jox tariqa tijaan man ko bismillah jox ma tariqa tijaan mu ne ma tariqa tijaan nag ku jàpp man ko waaw waaw nanguna dota ziyara benn wali bu nekkul tiijaan wali wu dund ak wu dee mooy taxallaqu istimdaadi ma ne ko d'accord naa moom cheikhul xayr waaw moom cheikhul xayr mun ma encore doo ko bala benn tariqa man ko d'accord naa ba tey la ci nekk na ci ay grain ci lii bëri na lu mën a leeral ci lii bëri na trop lu tax doo ko bala benn tariqa lu tax boo ko jàppee doo ko bàyyeeti lu tax boo ko jàppee doo ta ziyaara ziyaara ko xam na istimdaad cheikhu tiijaan dafa nekk mu jaddit bu wér lim indi nii yëpp charia la parce que moom moo wax ne Cheikh Tidiane la moo waxoon ne lépp lu ngeen di gën a maa ko wax bëskil bi koy pesé mooy charia bu dëppoo ak charia jël leen bu charia wi dee baleen ko te seytaan moom dafa ñëwoon wax wax ñu mel nii may laaj nag jullit yi ndax diini islam nit am na doro boole ko beneen diine kenn amul droit boobu yaakaar na alxuraan ko wax هون يبتغي غير اسلام الدين فليقبله هو في الاقمين قاصرين كيف كو خامني بول دين اسلام اك بن دين دا ياكو دين في الله موي الاسلام ان دين عند الله الاسلام كون دين بي كوك دوك بول بن بن دين موي تريك تان دوك بول بن تاريخ دوتا زياره بن ولي بن كول تيجان اه دين الاسلام دي دوتي نيك دي زياره ابي فير خنا زياره زياره بو موي تخلق اسم دات باتي بوبي تو نيوتي ان نيوم نيار سوكو جابي دوكو بايتي islam bi dafa ko jàpp du ko bàyyeeti di mhm. kon lee mooy lii lii mooy laa benn mhm. affaire bi rek la mhm. kii ko waxee ne liggéey ko ne kii li liggéey ko ni mu mel ñaari mbir la fekk benn mbir la benn waaye mas sama laaj benn laaj mu ne ma sang yow dangeen ngeen wax ne tarixateen ko jàpp doota jaare benn wëli bu nekkul tiyaan maa ne ko waaw waaw loolu chatan moo ko wax mu ne ma loolu nag kon dangeen ngeen takkal diini ji ma ne ko déedéet takkal huñ diini ji day bool diini ji mu ne mu ne waa ji de. yaakaar ne nag dana ma jokk mu ne ma. yéen Cheikh Tidiane da ngeen wax ne dafa wax ne lépp lu ngeen lu mu wax moom charia moo koy dëppoo ak moom bu ko sar dëppoo ko man ko waaw. man ma li ma lii ma sare ko man nga ah, xam kay sare ko wax. mu ne charia charia moo ngay taxal dinañ ku nekkul dinañ ma ne ko ah, de la may laaj ko sare waxee rek kay. comme ñëpp laaj ma. mu ne laaj ma mu laaj ma ma ne ko. Cheikh li mu wax ne ku jàpp tariqatan bul siyaare benn wëli bu nekkul Tijaan bu dund ak bu dee bu ko siyaara xam nga loolu li muy firi ma ne mu ngi mel ne jànq bi ci koñ bi amagul borom kër ku mu nekk nga ko. taali boo xam ne amagul amagul sëriñ sëriñ bu ko ne mën na ko bugg rek benn la. dëgg la aywa bu demee ne ba gis sëriñ bi ba gis nag léegi jëkkër ji mu bëgg ñu dem jàkka ja maye sëy boo bay mi ko see maye ndaw soo nekkee woon xaraamal leen bépp góor bu sa borom kër. dëgg la comme ñun de suñu jëkkër mooy Cheikh Tidiane. seet naa ko nag xaraamal leen benn benn bu nu man. dëgg la ah parce que moom mate na ko. dëgg la lam doon mu cher bu mu bu wër bu wër peng la. ay wow léegi Sanga jaay aussi bi mu demee Boubacar ay fa am naa fa un mois fermé jógee fa ànd ak Cheikh ñu dem Taïba Niassène jógee fa ma ñëw Kaolack ma ñaanal ma ñibbisi alhamdulilah booba léegi nag xalaqa bi nga xam ne mu nekk sama diggante ak moom si sama xol ba léegi ba léegi dara sensiwul ci dara sensiwul ci ndax li ciy preuve mën naa ci rek mhm. def na chaque fois ma def gàmmo chaque année ma def gàmmo gu mag bu mag bu mag Dakar mhm. ñëpp ñëw mhm. imam Cheikh Tidiane moo koy def waaye chaque fois su ma téye micro yi dama naan Cheikh Cheikh Cheikh Amadou Tidiane mu naa ah, ma ne ko sama buntu ci Cheikh Ibrahim muy Cheikhul Xeyri on du fëkk jëf sama buntu Cheikh Ibrahim muy Cheikhul Xeyri aywa waaye nag pi yàlla bi mooy nekk loo xam ne dóoru bi muy def moom man a jaaxal ku yàlla bind. waaw na jaaxal ku yàlla bind loolu du ma ci dugg parce que. détail bu day waar la. détail bu métti la moo tax waaye daal. jaar naa fa rek daal ci gàttal. Mm-hmm. te ba léegi nag tey la gën a nekk sama sëriñ. ah man maa la wax lii. ay waaye nag yàlla dafa bëri ay yokkute. yu bari. Mm-hmm. waaw te loolu baay jàngale woon na ko. Mm-hmm. laakin isa romtal illah wa zikruhu. xalayka bi arkani xilaafati wa sirri bu fekkee da nga bëgg a xam yàlla man Baye maa ngi lay dénk nga jàpp xilaafa bi ak ponk xilaafa bi ak mbóoti xilaafa bi kon xilaafa rek doyut xilaafa la ak ponk xilaafa yi ak mbóoti xilaafa bi loolu la Baye jàngale lakin isaa romtal illaha wa zikruhu xalayka bi arkani xilaafati wa sirri lii mbinam bàyyi leen si la amul amul amul labal labal amul labal labal ñun du moo tax waxtaan yu mel ni boo gisee réseaux sociaux yi mhm. man yooyu du ci dugg parce que gis naa coow yi bëri na waaye du ma dugg ci loolu ndax jëru ko parce que man xam naa li ma topp maa ngi ci alhamdulilah maa ngi sant yàlla baax ci loolu ay wo mhm. léegi nag bu fekkee dama bëgg a ëndal nag suma démb ci Cheikh Ibrahim mhm. bàyyi man naka jekk man dama wax ne musuma nekk lu dul taaliba Cheikh Ibrahim am nga une fois ñu mën naa wax loolu te du wér lu laa ko teg dégg naa ñuy laaj ne euh, ndax Sanga Ndiaye mbokkam mi lan lañu woon man mhm. sama papa bi ma jur. Mhm. taaliba Tijaan la mosoo doon. taaliba la mosoo doon. sa papa bi la jur. bi ma jur Ibrahima Ndiaye. macha moo moo moo tax mu tëdd Abu Bakar Sadiq. allahu akbar. sama sama sama sama taw muy tudd Muhammad. kon loolu moom leer na. Mhm. bi may jàng nag tout tànk nekk daara ji ci daara ji. daara yi mu nga tudd bàyyi Cheikh Mbaye aw moo ko moomoon dañ daan dem di foo ci pénc mi pénc mi di fo nii ci pénc mi bi ñu daan foo rek Baye Niass ñëw ak DS bi di ñëw xam Baye boo temps boo Baye mu nga yor DS bu ñuul kuk mu rafet buñ ko see mu ñëw rek ñu xel daal naan eh Baye Baye Baye Baye Baye daw dàq oto bi biñ dàqee oto bi man maa jël pay keroog ma jël pay Baye oto bi daw ba sori Baye na sóoru taxawal digënté benn guuy ak benn kasiya fa la bay taxaw ma ñëw ex rek mu jël loxam bu tedd ba tek sama bop bi hmm? wallahi bo ma nga xalé xale bu ndaw sëriñ soxna si ñaanal ma ko teuf sama yaram dafa mel mel mel mel lolu lolu moo tax man bëgg bay sorsi war sorsi oh, ci man li bëgg bay gi Tapi la bu mu nekk ci man mu oh, dar mu ko dindi ni la bay def man lolu ba hmm? na ko xam lam iya, saf ko oh, ma ci mo xam oh ndaysan son bobu la ray teufli ma bo sama yaram bi di daw di ñar ta ta ta ta oh. ñaar ta ta ta mu mel mel mel man dem teubal galas te bobu ngi nek xale bu te bobu ma ngi nek xale bu ndaw ma li wax legi mu jigi wa dekk ba dañ doon ñew mu ñut bay li comme lañ mëna jot legi oh. ñuy ray samp man di di def seen jiwu gerte ya ndaysan tan bi amna ko cheikh ibrahim muy bu doy war biir la net amna yeen way bi la net li man ndaysan bi bu na diko net lu tosop torop te loolu preuve ba léegi mu ngi caaxaan koo dem lakk lakk ñu wax la ko. loolu maa ngi sant yàlla ba am naa pour preuve boobu. ci Cheikh Ibrahim kon moo tax may la man musuma nekk. lu dul talib Cheikh Ibrahim. wallaahi wallaahi. Hmm. fu ma mën a jaayee tamit damay jaay waa li wax ne bukki wii wii jaay ndaay rek. bukki wii wii jaari ndaare yàlla nga ndaari di xaar bukki. dañoo ban ko dañuy werante ne kan ma ko njëkk gëm. ñi ne ko njëkk gëm ñi ne Ababacar la. ñi ne déedéet soxna Xadijatu la. ñi ne déedéet la. a ah, borom xam nga mag bind mu ne wa ëwala man amani bii rijaalu sirqu ababakan siddiq ki ko njëkk a gëm ca mag ñi ca góor ña mooy ababakan siddiq bu may nii say saw judo saydi xadija ci jigéen ñi tamit ka ko gëm ka ko gëm ci jigéen ñi mooy saydi xadijatu dëgg la wa min nisaai wa min sibyaani ibnu abi talib ca xale ndaw yi nag mooy ali abi talib ba tey waxagul kam ñu ko gëm mhm. dafa ne ka njëkk gëm ca mag ña ak ki njëggam ci jigéen ñi ak ki njëggam ci xale yi mhm. kon ba léegi ki njëggam xamaguñ ko ba léegi mhm. lënt na mhm. bàyyi ñes mu ne yonte kii ku njëggam xam nga man xam naa ko ñu nakal mun moo njëgg boppam ñu xool arxoon arxoon ne amana rasul bi sa illi yi <laughs> yonte moo njëggam nekk lii arxoon indi moom moo gëm bopp kenn du ko mën a gëm waaye nag boo fekkee Ababacar moo ko njëkk gëm day dagan de son topp ci day dagan de alin mooy pi yàlla subhanahu wa taala Abubakar Sadiq ak soxna Xadija ak Ali ama taalib bu bu yónni ñëwee nekk si mura zahira lii muy pi yàlla wi ah waaw dagan bu baax dama la bëgg wax rek ne la soxna si mhm. eh, mbëggal sanga njaay ci Cheikh Ibrahim mhm. eh, nit mun ma ko natal déedéet man xam naa sama bopp xam naa kan mooy bëgg naa ko mbëggeel goo xam ne mbëggeel goo xam ne yaakaar naa ne man man man rek maa ko moom loolu dama ko gëm ku nekk na am nga sa sa sa sa mashar ci moom ndax Alxuraan dafa waxoon ne qad xallima kullu unaasin masharabahum yàlla xamal ne kenn ku nekk ak naanu waayam waaw ah, ku ne ak sa naanu waay kon naanu waay bokkuñ waaye man xam naa ne Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu xan nag moom benn façon ànd xam naa ko benn façon xam bëgg naa ko benn façon bëggeel la ma waxoon ci yun bi bu ñu daal bu ñëwaatoon tey dara yokk ci bi bàyyi ñëwaatu du du sama taxu sama sama sama toogaay du ma ko defaraat. Mm-hmm. ndax du ma wax mukk lu bàyyi waxut. ah nag nag wax yi tàng. Mm-hmm. mën a métti rek ba mu jaxas sax nit ñi. waaye eh, bàyyi mel noon bàyyi bàyyi wax na lu gën a garaw lool. su ma indee woyu bàyyi. layal woyu bàyyi. ci li bàyyi woyi. mais koo xamante ne bàyyi da nga naan li mënta nekk. ci li bàyyi woy dañ dem ba mu nettari bii nettari bii kaw na bii lii. netri bi nga xam netri bi nga yak nga xam yalla ko bind mhm. da ko nañ ci mhm. waye baye mo def na li doomu yonent bi la mhm. yonent ma netri bi bu li tu bi hubil mustafa qadmi ahmad abil kawni wal akhlaq farhan wa matida mais baye ko bind moy walu moy lu day ay wa beneen bi ci moy euh yonent am salaam dafa taxaw ne man yalla ma jangal yalla ma tarbiya bani rabbi fa ahsana tahdibi man yalla moo jangal jangal bu rafat kon yalla ma tarbiya la wax yunus loolu wax mu jamono ñu ñu la Cheikh tiane Cheikh man tamit rabbani rabban rasulullah ahsana tarbiyat man kima tarbiya yar ma yar bu rafat moy yunti yalla Muhammad kon Yunus bi yalla ko yar Cheikh tiane yunti moko yar baye mom ñew sans waa ji ma ñu ne ko yow baye yow ku yow mu man day muradul li hamdi sirri min xabbi nas ati mhm. mu rabbin li kulli aarifina ba mu istu mhm. mu ne man kenn du ma tarbiya maa tarbiya ñëpp allahu akbar loolu wax la de <laughs> wax la de wax la boo xam ne nag ku nekk diggal la ci digg na nag kii moom nee na yàlla ko tarbiya kii nee na yontu ma ko tarbiya kii ne man maa xenu mbóotu yàlla bi mhm. muraadu li hamdi sirri min xabbi nas ati mu rabbin li kulli aarifina ba mu istu kon ko ko loolu loolu loolu waxu bàyyi la léegi nag kon question day ñëw question mooy lan mooy dañu laaj bàyyi na ko waaw yow bàyyi kon kaa ñu laaj la comme yaa fekke woon lépp. yaa tarbiyee ñëpp léegi dañ leen laaj yonent yàlla Muhammad nak la ko yàlla tarbiyee Cheikh Tidiane nak lu nak lu Yunus am tarbiya yaa fekkee lépp kay war laaj laaj lu ba la tut ñun bàyyi na ma tontu ko mu ne bu ngeen laaj ma ne ko dañuy laaj ne yàlla naka tarbiyee yonent yàlla Muhammad bàyyi ma ne nabiyun qubaylal kawni waxad rabbuhu fa sa alay zaatu ansal bisa qardi mu ne yonent wéetal na yàlla ci jëmmam jëf ba yàlla gërëm ko rek def ci mën tajjal yi comme ni xam neenu ganaar bi neenu ganaar bi bu nekkee nen bi amagul cuuj bi waaye am na ay yu nekk ay grain lu weex ak pëdd ma as ndox as ngalab ba mu yàgg nen bi cuuj bi di ko wéetal ci biir nen bi mu ci maqamam rubo bi ya la koy tëbbee cuuj bi tëbb boot ci maqam ubudi ya bu nee ba ubudi ak kii jaxasoo rek léegi nañ def tajjali cuuj taxaw na yàlla noonu la yoon loolu moo nekk diggante yàlla yàlla yonent yàlla sallallahu loolu la bàyyi jàngal ne bin xubaylal kaw ni wa xadar boobu rek fasa alay zaat un seul bisa xad xoole bii bor ni ñu ko fayee ni ñu ko fayee bàyyi bàyyi mu ni ñu ko fayee mu ne may na ko jëmm ja may na ko melo ya may na ko tur ya may na ko jëf ya may na ko jeexeetal ya ne ko ne bul xamaa yàlla loolu la moo des kon may na ko jëmmam ja may ko melokaanam ya may ko turam ya may ko jëfam ya ko jeexeetal ya ah waaw waaw bu la wax maa yàlla parce que boo waxee yàlla gëlëmal nit ah waaw waaw yéen nag bu ñëw ci alquran nag moom bu leeree alquran moom da da nga si ay waxam lu dee waar la aywa kon kooku noonu la mel ak kon mu ne noonu la yàlla tarbiya yonent yàlla Muhammad ñu ko wax Cheikh Tidiane moom nu ko yón nu ko yónni sam tarbiya mu ne wilaya dafa tëj woon ci biir nubbuutu mhm. di màgg bu wilaya di bi bu nubbuut di dem wilaya ngi dund Mm-hmm. di màgg ci biiram. Mm-hmm. benn la rek ba tey di màggaat ci biiram. ba ne ba nubbu tëj rek wilaay du génn moo tax man al wilaayatu tafajarat min ba nubbu saafiya kon noonu la wilaay yun tarbiya mooy tamit Cheikh Tidiane. waaye du dara bi nga bi nga yaakaar parce que bokkuñ jamono. dëgg bàyyi nag moom lan moo tax mu ne mu ne man maay muraadun li xam ne sirri. isaan hmm. bàyyi ñes fi nga ba foofu bëri. Mm-hmm. toog na fii rek mu ne indi ne qabla al baraaya indi nii tawkiil la ci arab. xablal baraaya njëkk mbindaa foon di kon kan nga. dëgg la kon lan nga yow. xablal baraaya. mu ne mu ne hubu soxlu jinaani. hubu akli wa sarabi wa diine wa jinaani. lii bàyyi ko wàll boppam. xablal baraaya la wax. kon ñu ngi sant yàlla di wax ne bàyyi ñes mbirum. soxna si Lamine lot na ci moom. isaara doy na ci. parce que ñëpp yemuñu. Mhm. léeg-léeg nga wax tàng ba mel nga bàyyiwaat ëf mu seddaat ba mu yàgg xay na nga door a benn carton. loolu day am parce que loolu day dagal nag. Mhm. léeg-léeg mu dóor benn kënu. mu métti lool tàng jib ci nit ñi. Mhm. ba mu yàgg rek nga ëffar mu sedd. Mhm. nga waxtaanaat waxtaanaat waxtaana ànd ak nit ñi. waaw euh, te loolu dagal na ci nit yàlla bi. léeg-léeg mu yéeg ba mel ni moom mosu fee ne. léeg-léeg mu wàcc ba mu ma ba mel ni fi ne. loolu la mbir foon yii lii li am nii. li du amul sayun la mawjud la mahdum la fi an wahid li fi nek yeb ngay koy xool nii ah billaahi la ilaha laa ilaaha illa mu nga mel na tey xam nga fi nek nu mel ni mu nga mel nay bu tàng rek nga seen ndox na li muy melax melax nga def do fek dara li fi nek nak so de ba gisee ne lol mo fi nek li mo fi nek li fi nek yeb noonu la mel xëy nga ci yàlla kiray dañ nañ loolu mooy egg ci yàlla egg ci yàlla mooy nga dem ba nga xam ne laa sifatan wala isman wala xilaafatan wala ayna wala kayfiya ma xam shaqi wal maxqi wa dakki wal fana il fana falaysa fi haza ila mata xaqi lil xaq bil xaq fi lxaqi falan yaqa illa la la shay xayru fa ma zamma mawsul ma sama bàyyi lii mooy dëgg moo tax mbiru bàyyi soxna si. Eh, ñëpp taalibe bàyyi lañ. Mm-hmm. waaw yéen ñëpp ne ne ko taalibe bàyyi rek. Mm-hmm. waaye ne ko taalibe bàyyi yombul moom. waaw mm-hmm. ah, yombul nag waaye nag yéenal ne. sa xol bi yéenal ne ñëpp ni yàlla na yàlla def na taalibe bàyyi. waaye nag ne ko taalibe bàyyi moom yombul. wax dëgg yàlla yombul te it moom ma ko waale. dama dégg benn uh, jaam yàlla boo wax ne. temps yii rek la xam fa naa ko seetaanee mu ne. nit mën naa xam yàlla. Uh, feneen ten du du ne kër man bañ naa. yee eh, man bañ naa mille fois loolu. xam yàlla man tam ci luudu kat baay. te baay bind. Baay Ñas dafa wax ne fasirun sara fil xayfi xëy ni man baay sama mbóot moo reen ci ñaari ci ñaari ñaari xaaf yi ñaari xaaf yi kan kan la bu na xamee. daanaka waxu ximat ko alaw xati yoo jëriit yi. mu ne sëriñ si fi nekk yëpp jërëmal lañ doom jërëmal. <laughs> waaw bàyyi na bu fekkee bàyyi na ne sëriñ sëpp jërëmal كون كورو ام دو كورمو كون فان نغمو نيبتي باخام يال ولا خمو لي بايو بو فسري سرافيل قافي خيني وحقمت شيوخنا علو حتى يهل جريدي نيب جيرم لا ندو كين دو امات دوم دوم جي موي دوم خم خم لا واخ بو دوم زاي ني ني ام ني ني ام دو با ليغي دوم مانا بي لاي واخ li ci benen bi ci garaw bi ma rek mu jexal ci lolu li ci li ci meuna andi bari na mhm. waye baye mo bind mu ne waqat tatabatu kallam al arbab al ma'arif mhm. فما رايتك اللهم في سول قدم الاولى التي هي ادنى مراتب فتحنا والحقيقه الثانيه والثالثه فما زم لهما رايات من من باي توبنا غور يالي كين ген بار غور يالي جيخ فيك فيك نييب تاخو سي قدم نديك موي ترامول يالا كين مونتو كو بوزي موني باي بن لي جي mu ne ma bàyyi sama ak ñaar ak ñetteel ba sama jiigu ñaar ak sama jiigu ñetteel bi xet gi xëy na sa góor yi paasoon démb. ah mu ne waaw fa kay fa nag. nag naka beneen ba nga xam nga ne ca kanam dafa laa jëm te bëgg ko te yii. loolu inna wa in waqa shay'un gharwa min ahli faydati la yastaghrabu wa qad jatal isna li kulli man taw yow mu ngay bàyyi mu ngay dem mu ngay dem di ngay dem ba fa Seex Tijaan fan fam fiiri fiiri fiiraa nga ya wax yu atte yu bëri mu ngi foofu kon soxna si ñu ngi waxtaan ci ko yàlla màggal. Mm-hmm. ku ñu bëgg. Mm-hmm. effectivement da te dañ ko war bëgg nag. Mm-hmm. tey moom mooy nañ ko bëgg sax nag. ayaa naasu. xalul asla. wax fa muhammadin. way laa taroon dëxëre. jidde baraay. ay yéen nit ñi. xeent na leer yonti maama dañ ci yéen bàyyi. waaw dañ ko ci ni ñi. li muy wàññi nit ñi. cam fii nga fii nga may problème nag. xoolal wax bi dafa bàyyi maamu sañ-sañ. xëy na yéen nit ñi laa nit ñi la wax xëy na lañ leen yónent bi mbaa ma dañ ci yéen. nga man nga keso nga ne waaw bàyyi moom mooy kan juddi barki leen fii naan ma dañ ci yéen nangam nangam nangam man man ko la ay bàyyi kum dañ ci yow. Mhm. ay bàyyi kum dañ ci yow yàlla dañ na yónent bi dañ na Cheikh Tidiane dañ na lépp dañ na. ku xam luy bàyyi nag laa wax. Mhm. ko xam luy bàyyi rek bu bàyyi dañuy lépp dañ. kon ñu ngi sant yàlla bu baax. moo tax ba mu ñëwee sañ-sañ bi moom dafa ne wal ummatu xas dii fiihum ana asuuquhum ila hadabal rahimi ilahina man dama ñëw man bàyyi pon maa ngi xeetu yunti maa leen mang ngi comme pël ni maa ngi ay nagam maa man xeetu yëpp man jëmi leen ci bi yàlla subhanahu wa taala li man li man li suma macha allah soxna si kii kenn man tawax ci ay mbiram tellement temps temps bi nga ci man a am ba wax ci li nga xam ne mooy jëriñ temps boobu dafa war a gudd parce que ñun ñun bëgg nañ ko te nañ ko wax ci mom xam nañ ko baax ci li ñu wax ci mom te lépp moko midem la. ak yenen ak yenen ak yenen waye ma ngi sant yàlla baax. macha allah dinañu amul àllamu islami bi. dinañu ahlu tariqa tijaniya. dina ahlu fayda ibrahimiya. waaye di gërëm Mahamadul Mahi. xaadimul umma. xaadimul umma li muy firi mooy liggéey moom jaamu minaafoon yi. dëgg la xaadim moom mooy jaamu minaafoon la boo wax rek. te yun sa ma ko waxoon. Seydou Xawmi xaadimuhum te mo mooy tudd xaadim umma kon te mo ngi koy te mo ngi wone mo ngi ligé ligé bu rëy mu ngi orienté ay ruu yu bari di leen téxel kon ñu ngi koy ndokkel bax di la di la ndokkeel yow di la gërëm occasion bi nga ma may man yaakaar ku ñëw demee interview rek yaa ma may occasion parce que toujours maa koy xiif toujours maa ngi xiif loolu ndax bëgg naa di wax tout le temps waaw man nag ku ñëw di ma interview rek xamal ne yow sama soppe nga bëgg nag sa sa xam ne moom sama doom la dama ko bëgg loolu te yàlla tax moom moom dafa njaxlaf ci liggéeyam bi dafa ko bëgg xam nga xam nga nit li mu bëgg bu koy def da nga xam ne kii daf ko bëgg dëgg la man su gisee ci julli korate yeeg yow tabaski yeeg yooyu mu dugg ci gaa yi ni mu kii di ni façon di kii mo dama dama ko fan sax man waaw ah, dama ko fan trop dama gis liggéeyam rafet ci man ma kontaan ci moom naka jëkk moo tax ba ma dégg ne da ngeen may interview damay kontaan <laughs> parce que xam naa ne bu mu ñëwee man danaa gis appareil bu rafet danaa gis image yu rafet <laughs> ah gis ko koo ne sama soppale doom ñëw na sama sët ñëw na kontaan naa ci soxna si ñu lay baax di ba nga demee ba ca Cheikhul Xayri ku nekk xam ne ne fii Dakar la wax dëgg yàlla te bo fi ñewé fekk fi tarixa yu bëri bëri hmm. sang ndax kérok bi nga paree bi nga paree manam pour hadra bi samp fi Dakar ndax yomon. na jëfe na lay <laughs> nga lu jëfé lu jëfé te xam nga né yoyu mut ndax Dakar dëkk jaxasoo la dëgg la té lool bay wax na ci sax mhm. xam nga sama Senegal, talibé ci mhm. waxtan ci Sénégal fay wax né Sénégal ak réew yi ci biti nuñ mel mhm. mu nga mu ne nga dank nga xol cieb bu ñor bi ñu tegle cieb ni mhm. nga ciopati ñom joxatu mhm. ñom batant mhm. ñom yap ñom kaane nga toj nga boole ko ci cieb bi ko ni di mar ci biti xam nga bay mar ci biti limi firi moy li ci bir mom fokku du mëna mucc mëna mëna lo moy baye allahu akbar mëna baye defu téy senegal wër na bi di wër addu bi nak di mar adna bi mëna ba senegal du mucc dedet mukk <coughs> xoolal démb. Sénégal nim nii huntaale bay waaye xoolal tey. wallaahi. tax bi ma ñëwee effectivement commencé waxtaan fii coow li bëri. eh soxna sa loolu taarix ba su ma nettalee. Eh, dafa triste nag. Eh, am na ci gàllankoor yu métti. Hmm? gàllankoor yu métti métti métti métti métti. Hmm? dem nañ ba sumay dox ci mbedd mi ñu may aye dox ci mbedd mi. fii Dakar. Dakar fii. dox ci mbedd mi laa wax dox ci mbedd mi laa de. ay fajar dañ naan taxaw suma buntu kër di saaga ñiit yi ay jaasi ñiit yi ay lii loolu dal na ma Dakar Ndiaye fii man te la ay seer fii fii ci euh, Parcelles Assainies allahu akbar tan yàlla loo xam ne bon net bi dana gudd moo tax waaye jërul waaw ndax bàyyi waaye ah, boobu non moom boobu moom amul problème boobu moom man amul problème naa dee ci bàyyi amul problème sama mbëggeel <laughs> bu mu ci dee kay baax na su li nga bëgg nga wala war bëgg aywa am naa ci histoire yu métti métti métti. day na demoo ba ci biir xalaat est waaw xam nga loolu instant nit ki mën na ko def waaye déedéet waaye xàq nit ki. Mhm. Eh, du def loolu xàq nit ki moom fi mu samp moo dëgër. billaay sama yaay. ndeysaan. semaine bi ñoo bu coow li bëree. bu coow li sama yaay dañ koo jël taxi mu ñëw. ndeysaan. bi ñëwee fekk ma ni ñaa ngi ma nit ngi ñëw bëgg ma la wax lu. ndeysaan waaye ñëw nañ fii nit ñaa ngi sama kër nga fees. ak nit ku di wax. sama yaay ñëw kaalo comme ni nga def nii mosuru toog ñool ma leen ma ñëw toog munuma ah, Babacar man de maa ñëw pour sees la wax yi bëri na lool man de dama bëggoon daal nga muñ ba ci kanam nga bàyyi di wallaay war bul kaaxabati mi ngi àllaaxira oh. xam nga ku nekk àllaaxira du ma ko yaay mu naa mu ne mu ne ma ne ko maa ngi lay nettali saxaabu yonent Yàlla ma sa waxoon laay waxaat bi mu tiwee ci lislaam yaay ji ñëw di wax ak moom pour mu bàyyi lim dëkk. Hmm, saxaaba ne yaay ji. su ma amoon téeméeri yaay yu mel ni yow ñu ñu jur comme ni mu juree ma bëgg leen comme ni ma bëggee. ñuy dee par kenn kenn ba ne seetaan ba ñu dee ñoom ñu dañ dee ba jeex te doo bàyyi diini ci. loolu laa tun sama yaay ma am. allahu akbar ma ne ko Cheikh Ibrahima Niass mii man amaan ko amul asamaan su borom laal sax amul dara lu war a mën a texe sama xol bi ci moom ba ma jëm ko sa bàyyi. loolu noppalu boole mee nga noppalu mu yëkkati xaalis bu bëri jox ko nun na ko jëmal tas ni bi sama yaay man nun laa ko def keroog ah, ak yu bëri yu ci xew xew-xew yu bëri la foofu foofu nekkul nettali waaw waaw wala ñaa dee wala luy yëngal la ko yëngal ko ba doole moom la ñaa mi waxul loolu luy yënguwul la ko yëngal ma ko ba doole mhm. moo tax man su ma déggee yenn wax yi wala may xool yenn image yi ñuy wax damay ree rek soxna sa damay ree rek wallahi wallahi wallahi nit dana waxaat nek do nek nek nit dana wax lu mu xamul dara wallahi man jomina ci aduna bi nek nit dana wax lu mu xamul dara njottom rek dana ko dox ba mu wax lo xamne ne ko wax su suma gese yenn image yi daw ak yenn wax yi daw ni ci xaw tiktok la tuddu xaw lan ma mako setan ni ñi wax sanga jaay nangam nangam nangam nangam nangam te mi wax di safaan oh oh waye nak te taxul ne après da gën a foncé. waaye booba waaye booba xamul ne booba. fan lay xool. waaw Baay Ñas lay xool. wallaahi. baabaa naa ruuf ba sin win kuntu arju. Mm-hmm. waslu xoo suma jafaani. Mm-hmm, mm-hmm. mazzaqoo jildi jihaaran. axurjani min makaani. doona seen bin xayru jën waaye lam yéen la maa araadu. dëgg la xat ma daa saa kafaani. wallaahi maa ngi lay nuyu. ndeysaan di leen dokkeel dem mbégte lool a kontaan tey. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaye sang ñu daal di ñëw ci sa waajur bu jigéen boobu. ñu ngi dégg léegi nga koy ñaanal yal na yàlla xaare ko àjjana ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla yeesu man dem ci kaw amiin tey ak ni nga nekkee woon ci faydu mm-hmm. dégg yàlla mu metti woon loolu commencement bi mm-hmm. ndax euh, yaataloo ko mm-hmm. mais ni nga ko waxee xam nañ ne lu metti woon la trop bu mu jaral sa yaay mu déplacé wu sa waajur bu jigéen ngir lan euh, doom moo ko yëngal muree la ko yëngal ndax coow li metti woon na tey amaana nga ñaanoon yàlla mboolem teraanga tey boo am ci faydu rek bokk ko. allahu akbar allahu akbar tey mu daal di dem am na lu bari loo xam ne fekkewu ko. Mm-hmm. am na yéene yu bari yoo xam ne mëtaloo ko. Mm-hmm. am na mbëbët yu bari yoo xamante ne yàlla def na ne jotoo ko def ci moom. Mm-hmm. ci faydu mm. te goon nga lépp lu la bàyyi ñas may ci teraanga rek wallaay ma jox ko sax waajur bu jigéen ma jox ma jox ko sax nag wala mu am ci mm-hmm. tey affection boobu naka la la def wallaay wallaay soxna si yaa may laaj laaj boobu day waar boo xam ne sax ko fii ndeysaan Abdou Khadre Ka xam na sama yaay ndeysaan man sama njaboot gi ma ne ne xamuñ sama yaay hmm? te boobu mu ngi dund dund na ak ñoom ba sama yaay gaañu ker ba sama yaay gaañu lañ doon a xam kuy sama yaay laa wax hmm? xamul tax ñoom ñooñu ñëwuñu fi pour sama yaay. Mm-hmm. ñëwuñu pour sama baay. Mm-hmm. ñëwuñu pour man. Mm-hmm. dañ ñëw pour xam kan mooy Cheikh Ibrahim. moo tax sama waajur ñun ñëpp xamuñ ko. ndeysaan. ba nañ génne àdduna. Oh. njaboot kenn kenn xamu ko ci. waaye damay waxtaan ak ñoom toujours fi mais may rek may ma mel ni man dama naan yàlla. soo ma desanoon sama yaay ci àdduna bi dana baax. <laughs> maa ngi koy ñaan xamul tax. sama yaay Euh, ndeysaan daf ma bëggoon. Mhm. lool mooy li ko caax ko njuróo rek. coow li bëri ci man ndeysaan mu tiit bi mu ñëwee wax waa bi de ma ko ma bàyyi ko mu jëm ndeysaan ba mu ma ñaari fan ba ko fekkaat kër ga. neexal ko neexal ko neexal ko sax ba yëg alal di ko neexal. pour mën a muñ rek. ma ne ko yaayee may ma tuuti rek. may ma tuuti rek. may ma tuuti incha allah da nga kontaan. boobu mbir yi tàng na. tàng na waaye ndeysaan mujj gi sama yaay def yàlla ko defoon mu wéri woon. Euh, mujj gi ndeysaan mu génn àddina oh. ma ne ah yàlla daal li mu wax rek moo am fa xaal laa yurit mooy def lépp lu ko neex li ma ko neex waaye sama bëgg naa dund ak moom ba mu gis njëriñu doomam. booba teraanga gi ñëwagul ci faydu. déedéet déedéet booba teraanga ñëwagul ci faydu hee faydu. booba lépp neexagul ci faydu. raame naa ci faydu bi boobu dara boobu dara neexul. booba suñ kër mbaxalu saalum laa daan togg mbaxalu saalum. mbaxalu saalum laa de. lañ mm. daan togg ñun. Mm-hmm. moo tax su koy wax oto boo rafet wala kii boo rafet a xaay yéen oto boo rafet yàggul di <laughs> ñun yaakaar naa fonde sax lekk nañ ko. ñun ñun danaan toog duñ sax duñ sax am luñ luñ luñ toggee añ. ñun fi jaar ci coon def kenn fi tabaarkalla sa xaaliqiin waaye nag xanaa ne yàlla nag wax dëgg yàlla ko koy liggéey sax nag ab ab tool sax bu koy liggéey xanaa bu yàgg mu mm-hmm. gis naa fu bàyyi bind mu ne. Cheikh Ibrahim. Mm-hmm. mu ne yàlla subhanahu wa taala ak matam mat na ba ci ki jàng oto mi ci oto. dewal ot yàlla du fekk di ko fay ki jàng maçon noonu ministre bi noonu ah kii jaay noonu mu ne nag comme yàlla moom moo baax ba mën a fay ñii man bàyyi tan naa tag yónni man du ko tagg rek ma yàlla dama fekk fay na ma waaw may tamit ma xam lii may tamit man ma xam ne kon may tamit ànd ak lu métti métti métti métti fekk maa ne rek non dana sa dugg yi tax benn ministre benn woyu ministre yi lay tëjee ministre dafa woy benn woy woy bu ma neex jinaanun on laatoro fiha jahim o naaru hay coyude kal jinan mune mune ñun taale bàyyi buñ dëggi aljana dama xuus aljana gisuñu bàyyi man aljana waxul dëgg safara la aljana boobu waxul dëgg safara la waaye nag buñ génnee aljana boobu dugg safara fekk bàyyi toog ci digg safara ba a mooy safara waxul dëgg bàyyi la mooy mooy mooy dëgg dëgg aljana xam nga lu ñu firi soo nekkee multi milliardaire di am lépp loo bëgg am ko ci àddina bi lépp am ko te xam nga koy bàyyi. Mhm. xaajana xanaa jooju dafa lay sànq. Mhm. safar la ci yow. Mhm. waaye nga gëm bàyyi jax takk ci bàyyi ànd ak loo mën a nga muñ ko ngir Cheikh Ibrahim boobu. dépassé mënoo ko am ngir Cheikh waaye nga muñ ko ngir loolu. ay safar boobu waxul dëgg. dafal boo décoration ci bàyyi. jàppal. foofu mooy ajana bi bàyyi jël mel. jinaanun. laa tara fiihaa jahiim wa naaru ashuud kal jinaan Mm-hmm. kal nuyu soxna si kontaan naa rafet na taaru na jërëjëf macha allah ñu daal di appuyé wu ci loolu rek Barham après ñu daal di jeexal sang bi euh, sànq yaa ngi wax ne léeg-léeg sax dangay ñaan yàlla na ko ay boo indiwaatoon sama yaay ci mm-hmm. àdduna tey bu la indilaatoon sa yaay ci àdduna mm-hmm. bu la borom bi indilaatoon tey sa waajur bu jigéen ci àdduna ak teraanga gi nga xam ne tey am nga ko ci faydu macha allah te day gën a yokk incha allah dëgg la tey tey lan ngay wax sa yaay ak démb ci ci méttit méttit tàmbale faydu bi mu la gisoon. lu ma koy wax rek. waaw yow tontu nga am li ma koy njëkk a wax mooy yaay. du yaa ma ñëwoon wax na naa muñ naa naa def naa di ko du gis nga tey ni ma bàyyi def oh. gis ma a ko léegi kañ ana ci bàyyi bàyyi kan ne ma woon la bàyyi ndeysaan oh, loolu su ma la wane bàyyi wane fay naa la te a ma xasee woon bàyyi bàyyi la fay ci baatin soo ko wanee bàyyi rek fay nga ko maa man maa la wax ni ndax na mbëggeel moom ci bàyyi la yem. mbëggeel mahabba mbëggeel jëmmi mbëggeel mooy Cheikh Ibrahim te moom loolu bind wax na ko fu ne wax na ko fu ne mu mbëggeel la mu ne yàlla sax lam njëkk ama cosaan mbëggeel la. yàlla lam njëkk bind mu mbëggeel moo tax mbëggeel googu nag yàlla ga mbëggeel ga mu bëggoon yónni yàlla ma ba amal ko yón sax mu jëm mbëggeel ga mu ne mbëggeel googu nag tey moo taxal ci àddina bi kenn ko ni am lu mbëgg kii bëgg oto bi kii bëgg kër gi kii bëgg mbëggeel gi tasaaroo kenn ko bu fekk ko fàtte ki ñu war a bëgg moo baay moom moom tawke moo yonent rek la wax moom xam la bare rek boo sol jinaa yi sama yaay waaye nag comme gisuma ko tamit gis samay mbokk mhm. samay rak samay grand frère suma doom ndey yaa fi ñoo bokk maa ñoom ndey ak baay mhm. alhamdulilah comme ñoom ñoo fi nekk mhm. a ah, maa ngi jiim ci ñoom comme sama gisuma ko ma gis ak ñoom ah wax dëgg yàlla naa jàpp ci ñoom Euh, teranga yi may doon war jox sama ak yooyu ma bokk ak ñoom. Mhm. ci laa nekk ak ñoom. alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu mhm. euh, euh, man tabax tabax tabaxaguma kër Caaxo. fii pardon Dakar pourtant. Mhm, tàmbali naa nag. Caaxo laa tabax kër. waaye sama grand frère man tabaxal naa ko kër. macha allah beneen grand frère bi. tabaxal naa jox jox naa kër fii mooy tamit. macha kon man maa ngi jéem si ñoom. li ma am maa ngi koy ñëw bokkoo ñu am bët loolu te rek ma tama koy def comme sama waajur jigéen laa ko mébéti doon gisuma ko ma gis samay grand frère ak sama petit frère ak sama petite sœur ma dimbali ci la la nekk naa yaa nam loolu yëpp maa ngi ko di ko gërëmee Cheikh <laughs> mhm, mhm. di gërëm yàlla boobu baax a baax a baax ba yàlla mhm. li ñu ko mën a wax doyut yàlla loo ko mën a bakkee doyut tuur loolu tuur ci moom loolu daf koy effacé yun nu sasaram noonu ñun yàlla dañoo may lu ne la ci gën lañ yàlla jox. Mhm. yàlla yi gaa yu ñu am yàlla bi ci gën mooy yàlla bi ñu am ñun. dëgg la. <laughs> yàlla yàlla mi gaa yi jàng xul wala ahad mhm. yàlla boobu yi. Mhm. mooy moom te moom rek mooy yàlla. te moom kenn kott mooy yàlla. yonent yi li ñu bëri bëri bëri ki ci gën mooy yonental Muhammad. sëñ mu yonent lañ àndal. dëgg la wala yàlla yi li ñu bëri gën mooy Cheikh Tidiane. te ñu seetaan seetaan lañu àndal. dëgg la xoola faa yàlla li bari bëri bëri bëri bëri ki ci gën mooy Cheikh Ibrahima. Mm-hmm. kon ñun lu ne la ci gën ñoo ñu la ko yàlla tànnal. Mm-hmm. li muy sant yàlla bu baax soxna mm-hmm. sang bi ñu sant yàlla bu baax. wallaahi tey jeunesse bi. am na ñoo xamante ne dañu ñàkk waajur. waaw moo xam waajur bu góor la wala waajur bu jigéen la. mais tey dañuy yaakaar ne jóge nañ fa rek seen àdduna yàqu. waaw bëri na tey am na yenn conseil nga leen mën a bàyyi. loolu ndeysaan am na ku ma ciy temps yële euh, bi. maa ngi leen di wax ñu dal. xataa géej gi sax waxtaan naa nañu dal. yàlla mooy joxe. Cheikh Ibrahim dama dégg moo xam benn wax boo xam ne rek euh, boo ko dégloo rek seem day daw. nee na yow bu lekk na sa wërsëg mu ne boo remontee benn portable fii portable nga xool gisoo gisoo fi kenn mu ngi jël par dugal sa poos. yaakaar na mën na la may dara nga dem Colobane jaay ko. Mm-hmm. mu ne déjà saa toroxal nga sa bopp. Mm-hmm. toroxal nga say loxo mhm. toroxal nga sa xel mi toroxal nga sa lépp ci yow ba pare te sa wërsëg bi nga war a am mhm. soo boon partage bàyyi ko foofu wan doo dox doo pa mu tamoo lii mhm. bàyyi dina ma wax li man ci mbaax rek ci maandu nit di faro maandu kenn mën ta fexe ba lekk wërsëgu wërsëgu kenn li coow li bëri bëri bëri bëri kenn mën ta fexe ba lekk wërsëgu kenn kenn mënu ko ku nekk rek sa wërsëg yaa ko ànd kañ koy am naka la yàlla xam waaye dal sordi moom yàqu moom amul ku ci mën a am suu xanaa koo ci may kon ñun yàlla boobu mu ci ñun moo bi maa ngi leen dëkk ñoom ñëpp mhm. ñu xuyu Baye ma ne o oh, man owuma leen ma ne yàlla nat yàlla nat ma ci sénès bi macha allah ñu topp nañ ma ngir Baye eh, dama jàng wuyu Baye mhm. <laughs> toujours rek man wayu Baye ci la xool rek rek mhm. bàyyi dafa ne tazakkartu wa zikra tukaddiru liyal mahya layaali ittimay hayyi fi hadratil hulya bàyyi lu xew mu ne foofu nag yu haadiru nii fit yaanu siddiqin yoo xam ne xat axsu ilallaa qasdan te la ni ma tawala nax ya loolu mooy lan mu ne bàyyi bàyyi dafa ne man bàyyi maa ngi fàttaliku fàttaliku boo xamee day nëgal sama dund gi day nëgal sama dund gi li may fàttaliku man bàyyi na le ci yàlla su ma xalaatee ba gis ko dëgg sama sama dund gi day nëx ñu ko bàyyee mu ne mu ne ma ci daje daje way quartier guddi ga guddi guddi quartier ga guddi quartier ga guddi nga xam ne quartier fa ndaje ñu ko fa mu ne fa hadru ko ci piyal bu koy ba mu ne foofee na su fa demoon ci Ibrahim xam nga fekk fofu ay xalé mu ne yu hadru ak man ci hadra bobu fit yaanu sadiqin ay xale yu dëgg yo xal ne ñoo xad alasu allah ñu ngi selal jëm ci yalla ñoo xale yu te ñooñu nan la moo tax wala neexee ñoom duñ dund duñ dee. waaw loo may la soxna si nit ki liñ xam mu dund baa dee. duñ dund duñ dee moom lan la war a dox. dund moom xam nañ ko mu ngi nii muy ko dund dee xam nañ ko muy niw bi ni bu tëdd te bàyyi ma ñooñu ñoom lan na moo tax wala nax yaa. ah day na waar de kon. ah yàlla yàlla xamal loolu kon. yàlla yàlla xamal lan mooy dund ak dee. ak ki nga xam ne moom bool na dund ak wala moom dund dee loolu yëpp mbiru Baye Niass la waaw moo ko waxal boppam ñu ngi sant ci loolu ñu ngi leen ndokkeel baax soxna si kontaan nañ trop amiin yaa rabbi hmm. ko defee rek dañ lay daal di bàyyi nga daal di def mot de la fin ñu daal di tëj ba beneen incha allahu rabbi hmm. di am beneen yoon mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax a baax ci temps bi ñu may tey maa ngi lay bëggee hmm. maa ngi am kontaan ci yow maa ngi rafetlu sa liggéey Mang bak lay bakk ci sa liggéey lita malay bak lay yuntal muhammad moo la yuntal muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ne balliqu anni wala aya na nga jotto ci man donte ben aya la ah bay ya te yow de yang jotal ya wax legui ne da ngay te sa micro topatale bay muqaddam ku ne ko tal ko mu wax kon yow yaangi jotal gaa jotal yow yaay jotal gaa yi ñuy jotal. kon sa liggéey rafet na. te it ku dégg ni nga animé débat bi. Mhm. dana xam ne yow vraiment lii sa liggéey la. te man ko ko trop parce que man ñi may toogal bëri nañu ah. ñi may interview bëri nañ trop. moom sama maa xam si dara. mais bii dal bi nga dal nii. Mhm. dal. Mhm. sa sa dal bi sa yow. moom yi ah, man daluma de man man yaa lay waxee de. man dama ci ci mais sa dal gi moom xëcc. pour ma pour man man ma dalé wax nank ma nga lay wax ne ma nga lay ndokel bax sonu si ma nga lay geureum di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala fanu gudd lool and ak wër ya fanu gudd lool sonu si and ak wër ya fanu gudd lool lool lool and ak wër yalla hit may la alal ju bari and ak barke ya ana ngal mané bar subhanahu wa ta'ala yalla may la wursagu yaatu lool ubbeku di sa sa ju rek ko demone mu digge fo comme ni ko bay ñaané won maanaam ñaanal yàlla xel mu dal lool ak xol bu dal ci gëm yàlla ak cër yu wér yu mën a jaamu yàlla ak xol boo xam ne am na xalbin salim xol boo xam ne samp na la bàyyi waxoon fajal fuadi ka saqari wala wala tasuru kabaani sa xol na samp ci yàlla ba nga xam ne dara mënut koo buuse a ñaanal loolu soxna si kontaan naa ci yow baax liggéey bi rafet na taaru na jàmm salaam tawfiq uma tawfiq ila billah wasalaamaaleykum wa rahmatulah jaajëf Cheikh Ibrahima. macha allah jërëjëf jërëjëf alhamdulillah di wax allahumma amiin yaa rabbal aalamiin ci ñaan yi sang yow tamit ñu lay ñaanal yàlla yal na yàlla gën la kattanal yàlla gën la gën a taxawal barke Baye Niass yaa rabbi yàlla def réussite totale ci ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi sa ron dëgg yàlla di la ñaanal yàlla bu baax a baax ci barke bàyyi Niass di wax ne yàlla na Baye fay la bu baax dëgg yàlla ndax lii yomb li yombut waaye lépp loo xamante ne rek dañ ko fi jël si dañ ko fi taataan si mm. pour jeunesse bi moo tax mm. parce que dañuy appuyé wu foofu saay su nekk mm-hmm. surtout ndawu faydu yi ndax liñ fi waxtaan lépp njëriñ la liñ fi waxtaan lépp njëriñ la te incha allah rabbi am nañ yaakaar ne dana tasaaru kon yal na yàlla may ñu dégg ak topp jàmm yàlla yi jëriñu ci ci mm-hmm. yeneen ci yàlla Muhammad ndax lii rek ñu yëkkati woon di sant ñëpp di gërëm ñëpp beneen yoon waaye di la sant yow di la gërëm bu baax a mm-hmm. baax di gërëm suñu sponsor yi nga xamante ni mm-hmm. saay su nekk rek ñoom itamit ñu ngi ànd ak ñun ci entretien bi nga xamante ni comme ni ñu ko waxee sànq ñu ngi wër ci kër mu muxaddami di ko def ak ñoom ñu ngi leen di gërëm ñoom it suñu partenariat yi di leen sant di leen wax ne beneen yoon ubbi nañ buntu yi yéena ko doon demandé buntu yëpp tijjee ubbeeku na mhm. ubbi nañ bunt yi waaye di woo mbokki taalibe yi ci abonnement yi mhm. képp koo xamante ne rek dugg nga Barhamiennes TV YouTube mhm. nanga nga abonné parce que nii rek lañ koy continuer saay su nekk ci fay faydu bi incha allahu rabbi ah, gis nañu jaar jaaru sang Barhama am na yeneen mu muxaddam yi fi jaar tamit mhm. ñoom tamit gis nañu seen jaar-jaar ci faydu wax dëgg mhm. yàlla te lépp njëriñ la lépp rafet na lépp taaru na te ñun ndaw ñi dinañ ci jàngee incha allah kon ñu ngi gërëm Barham Shop boutique Serigne Mansour si bu nekk ba Kaolack euh, mu ngi nekk ci euh, mbaaru xartum foofu la nekk di boutique Barham Shop ñoom tamit dañuy jaay lépp loo xamante ne rek ay tissu la dañuy jaay lépp loo xamante ne jigéen di koy jëfandikoo ñu ngi ne ñoom ñoo nekk ci faydu bi euh, foofu nag ki nga xamante ne moom moo fay gérant bi di Abdou Aziz Dia ak Seyda Rokhaya Seyda Rokhaya ja mi nga xamante ne mooy madame Ndour seen numéro téléphone di 77 398 57 98 mbaa ngeen wootee ci 76 684 47 39 ñoom itamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ñoo jaar ci yére bu yànj bi wax dëgg yàlla tey solal ko matabaay rien que rek ne ñoom itamit dañuy jàpp ci émission bi hmm. ndax mbir mi mbirum faydu la mbirum Mawlana Cheikh Ibrahima la sang di la ñaan yow it nga ñaanal leen yàlla bu baax a baax ñaanal leen yàlla bu baax ñu ngi ciy woolu Seyda Ayda mu bàyyi ci hmm. bitik Barham Sow hmm. di woolu Seyda Khady Diaw teewalu Seyda Bousso Daraame Seyda yaa Nene Thiam mm-hmm. Seyda yaa Ndey Maguette mm-hmm. Seyda Seyna bu daam suma mm-hmm. sëriñ suma yaay kon ñu leen di wóolu yéen ñëpp ci bitik Barham Shop bi nga xamante ni mi ngi ba Kaolack nekk mbaaru xartum incha allah képp koo xamante ni jël nga numéro téléphone yi def sa commande rek dañ koy daal di teg ci horaire bi nga xam ne day egg si jëppal kër baay bu ko defee livreur bi dem jëlil la ko ay prix yu abordable la ñuy jaay wax dëgg yàlla te qualité la ñuy jaay kon ñoom itamit ñu leen di sant ñu ngi leen di gërëm a baax ci bi diwo woo Seyda yi nekk ci faydu bi yëpp di gërëm di sant équipe technique bi nga xamante ne moom laa àndal waaye di béral nuyoo DG mi nga xamante ne saay su nekk rek comme ni ko sang waxee ku bëgg Baye Niass la ku sawar lol la ci liggéeyam te bo bëggee bay gis keneen ku bëgg bay rek yow pour nga liggéeyal bay sax du jafé wax dëgg yalla mm-hmm. yalla mo ñu bolé di mm-hmm. ñaan yalla na bay ñës te and bi bu baaxa baax mm-hmm. ñu daal di liggéeyal Mawlana Cheikh ibrahim Niass barke yenen ti yalla Muhammad ndax mu xadam yi tay ñom ñoo fi suñuy idol ñoo fi suñuy référence motax ñu ngi lu ñu ni tamit jema top seen tank assalamu alaykum wa rahmatullah ba benen yoon inshallah allah alhamdulillah ala dari يذهب المسك والكبار وفزنا يذهب يذهب البيت ولا تزل تنبغي زرفا